lo bi ñoom wax naa leen saa man sama faar dafa am problème hmm. mais ba léegi ñoom laaluñu sama faar te man sama faar yi fi toll ni moo may sonal sa faar yi eh, bu baax a baax a baax man démb bi may génne ñoom ñëpp wax naa leen ci sama kanam rakk bi ma ne ko man yéen may génneloo nii de mais wax dëgg yàlla wéruma ah. ñoom ñoo ma génneloo mu ne ma noonu génneel boo génnee léegi boo demee sa dëkk mun nga faju foofu quoi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 waaye tamit duñu jóg ci di ñaanal woy dawlu yi nga xamante ni euh, li xew bërkaati mu ñàkkoon nañ ci seen bakkan di ñaan yàlla sunu borom yërëm leen te jéggal leen te xaar leen na ah, vraiment mu nekk loo xam ne metti na sénégalais yu bari nag muy accident bi nga xamante ni moo amoon euh, bi ñu xoolee ñu nemmeeku ci quarante personnes yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan mu jógee ci dogalu sunu borom. kenn mënu ci dara am aussi tamit ay blessé euh, ci blessé yooyu nag ki ñu toogal kenn la ci ñoom euh, ñu koy masa bu baax a baax ci la ñu déplacé wu ñëw seet ko fii ak équipe bi yëpp fas yéene si xam moom waxtaan euh, frère dañ lay bàyyi nga nuyu ñu ngi lay nuyu. maa lay fay sëñ bi. yaa ngi si jàmm. a sant yàlla maa ngi si jàmm. ñu ngi lay masaw. jërëjëf. Euh, tuur bi naka la. Abdourahmane Guèye. Abdourahmane. Guèye waaw yaa ngi ci jàmm. maa ci jàmm Guèye. naka yaram bi. waaw mu ngi féex bu baax. yaa ngi féex. sant yàlla maa ngi féex bu baax. Euh, mën euh, mën naa xam ci ban bis nga duggoon. man bis bu jógee Tamba laa duggoon. bis bu jógee Tamba. waaw. fan nga ko jële boobu Tamba laa ko jëlee. Tamba nga ko jële waaw. ah Tamba nga ko jëlee. Tamba laa ko jëlee pour mu ñëw Dakar. pour mu ñëw Dakar waaw. ci yan heure. ah bés bi ay vingt trois heures la départ. ay vingt trois heures. waaw. Euh, c'est la première fois nga yéeg ci biis boobu wala yàggoon nga ci yéeg. non bis boobu mosuma ci yéeg ci biis boobu. c'est la première fois ma ci bis boobu. la première fois. bis bi avant nga ci yéeg. Mm-hmm. Euh, nemmeeku woo ci dara ci comportement apprenti yi wala chauffeur yi parce que des fois da ngay gis. apprenti yi laata ñuy départ ñii dañuy nekk fee yi def na ko sudul noonu ak chauffeur yi euh, avant nga yéeg ci biis bi sa xel xawul tey ci dara. non si si am na kay. Mhm. ndax suñu benn client ak apprenti bi awoon nañu jàppante tuuti avant oto bi di départ. benn client. waaw ci parler palaas léegi nag affaire bi am coow man gaayen bi ma dendaloon sax muy kaas mu ne ci voyage lañuy jëm coow baaxul. Mhm. bis bi dafa waroon départ ñu wàcce ñun ñëpp ñu arrangement ñu arrangé ba pare ñu yëgaat bis bi dem. Ah, avant bis bi di départ yéen ñëpp dañ leen a wàccee. waaw. ndax coow li nga xam ne amoon na ci bis bi. Mhm. waaw coow bi moo amoon ci bis bi. Mhm. diggante client bi ak emprunté bi. Mhm. léegi nag ñu xaw a jàppante client bi ak emprunté bi ñu xaw a jàppante. coow bi am ñu wàcce ñu ñëpp boobu ko ñu ngi taxaw. léegi ñu def arrangement ñu yeggaat ci bis bi. Mhm. boobu bis bi la départ. Mhm. ci trois heures. Mhm. moment yooyu noonu sa xel xawul tey wala nga yëg dara ci sa yaram ci kuy voyager heure boobu. non si si man daa sumay may man coow bu amee rek sama xel day teey man. ndax ku fi yàgg voyager rek voyager ak coow àndul. boobu moom sama xel tey na mais nag boobu nag xëy na ma ne ko yàlla baax na. Mm-hmm. noonu mm-hmm. demee après après ci biir oto bi. Mm-hmm. Euh, ci wàllu dawalin bi chauffeur bi. gis nga ni ni mu doon dawalee teeyul seen xel parce que boo xoolee chauffeur yi nekk ci àll bi souvent ni ñuy dawalee daanaka sénégalais yu bari dañ koy xaw a naqarlu. non si presque man moom yaakaar naa ne moom ñuy dawal bis yi respecté wuñ doomu yàlla jaamu ndax dawal yu bon la ñuy dawal. ndax koo xam ne ne yaa ngi yëpp. ay soixante personnes wala soixante ak quelque yow nga bëgg a sacrifice ci lii. Mhm. dafa métti. Mhm. ñoom moom dawal bu baax moom duñ ko dawal. Mhm. waaw ci biir bés bi moom xam nañu moom dawal bu baax moom du ko dawal. parce que mu ngi doon nekk ay vitesse. waaw. vitesse boobu nag man moom yàlla def na bu demee ba sori rek man commencé naa nelaw. waaw. bi may nelaw nag man bis bi bi muy daanu saa fekk maa ngi nelaw. waaw hmm. man dama dëgg tël rek ma yeewu ci nelaw yi hmm. ma yeewu dëgg yuuxu yi hmm. boobu xamatuma fan laa nekk man maa ngi yaakaar sax asamaan bi ma wàcc ci sama kaw mais yàlla dimbali na ma ba man maa génnee sama bopp ci oto bi man moom kenn génnewuma ci oto bi man maa génnee sama bopp ci oto bi léegi nag bu ma génnee ma gis sama loxo yi am problème ak sama faar yi ak beneen loxo bi fii mu am problème boobu mun ma woon taxaw su ma tëddee tamit day métti mais ma gis tamit maa ngi toog mais ñi ñu ngi leen di génne fekke ñoo dee ba pare irsa fer bi métti trop trop trop trop trop ba métti bi moom fii rek la mën a yem mu mel ni euh, deuxième porte bi deuxième porte bi première place deuxième place laa toog. ndax si ñi nga dendaloon ñoom waaw ki ma dendaloon benn euh, place de moom daa blessé kooku moom daa blessé moom waaw mais ku fi toppoon ci moom fi toppoon ci moom kooku moom bu ñu ko gënee noonu gis naa mu dee ursa waaw gis naa mu dee ursa. ci biir accident bi amee. Mhm. bi nga ba gis état yi ni ñu mel noonu lan nga doon yëg moment yooyu noonu. Ah, bi ma yeewee noonu ma gis ah, accident bi mel noonu nu mel boobu moom tiit moo a jàpp man tiit bu tiitaange bu metti moom ma jàppoon ba nii nii nii man maa génnee sama bopp mais xaw ma na laa def ba génnee sama bopp ci biis bi man mënu ko xam man maa génnee sama bopp nag ba ma génnee nag gis naa nit ñi seen dëkk yi ak avant sapeurs di ñëw ñoom di ñëw di rocc nit ñi di leen génne waaw woote na nag lu yàgg sapeur yi ñëwul après sapeur yi ñëw même gendarme yi ñëw ci jàpp nag. laata sapeur yi di ñëw laay ñëw yow ndax ndax yow teel ngaa gis ne maanaam accident bi nii bëri nañu si ñàkk seen bakkan ndax teel nga koo seetlu. waaw teel naa ko seetloo ndax li ma lay wax na ma fi ma toog nii rek waa dëkk bi bu ñuy ñëwee rek ñuy xëcc nit ñi rek képp ku ñuy xëcc rek day fekk moom dee na ba pare. waaw gis naa ay ñaari xaw ma ñetti nit ñu teg ko sama wet ni ñu dee. waaw waa dëkk bi ñoo njëkk a ñëw sauver leen avant sapor di ñëw ak gendarme. waaw waaw waa dëkk bi moo njëkk a ñëw avant sapeur di ñëw ñoom ñoo njëkk ñëw ñu bari ñoom ñoo leen génnee ci oto bi ñoom dañuy dégg saa nit nekk ci biir di yuuxu saa ñu ne kii déyul ñu dem gënni leen ko. accident bi fi ma amee dafa jege dafa jege dëkk bi. accident bi waaw sorewul dëkk bi de. waaw ndax man dëkk yooyu moom xamu xaw ma la lu bari quoi. comme dëkk yooyu. xaw ma la lu bari c'est la première fois sax ma xam dëkk bi bu ñu hôpital boobu ma xam ko quoi. Mhm. c'est la première fois tuuti ci moment bi nga xam te ne nii sapeur yi ñu ngi ñëw di dimbali nit yi ñuy génn. sapeur bi ñuy ñëwee tombé tamit policiers yi ñëw gendarme yi bi ñuy ñëwee di dimbali nit ñi ñoom lu ñu doon jëlee nit ñi sax pour ko. dafa manqué woon saak la ñu mujjee jël di dugal nit ñi quoi. pour oh. ñu dugal ko ci oto yi waaw ay saak yu bari yu bari moom saak lañuy ñuy jël rek ñu teg la ci ñu dugal la ci sa yi ci ñu ci ñu accidenté. ñu seetlu ne ñi ñi blessé moo ëpp. ndax yow côté bi nga nekkoon ci ñu blessé yi nga nekkoon wala ci ci côté moori. non man fi ma nekkoon ci ñu fi euh, gaañu moo fi ëpp suñu bis bi moo ëpp ñu fi gaañu suñu bis bi moom moo ëpp ñu fi gaañu waaw man ñi bis bi yëpp ñi ma gis foofu ci hôpital bi bariwul quoi bariwul suñu bis bi moom moo ëpp ñu fi gaañu moom waaw waaw suñu bis bi moo dal ci beneen bis bi pono bi moo génne quoi te mu ngi woon à vitesse boobu mënu woon tey oto bi uh-huh. mu dal ci oto bee ñaari oto yi nag bukkante moo tax boo ko seetloo sax suñu oto bi moo gën a nekk si suuf waaw noonu la demee moment yi nga yi nga yi nga yi nga yi nga gisee say say moroom génn ci àdduna te yàlla may la jàmm ak salaam ba nga toogaat di ko nettali avant may ñëw foofu biñ leen jëlee ci ban hôpital lañ leen yóbbu Euh, hôpital bu ndaw bi lañ njëkk yóbbu. Mhm. waaw bu ndaw bi lañ ma njëkk yóbbu boobu sama faar mu ngi am problème sama mbagg bi ak loxo bi moo damm. Oh. waaw mais hôpital bu ndaw bi laa njëkk dem avant may dem hôpital bu mag bi. Mhm. foofu euh, samedi boobu ci guddi gi ma demee foofu ma nekk foofu léegi biñ ma defalee analyse ba pare ñu doog maa yóbbu fee ci hôpital bu mag bi. Mm-hmm. waaw bi ma demee foofu ba pare nag ñu opéré loxo bi même bu ñu opéré loxo bi ñoom wax naa leen saa man sama faari yi dafa am problème. Mm-hmm. mais ba léegi ñoom ñu sama faari yi te man sama faar fu fi mu toll ni moom mooy sonal. sa faar yi da da lay sonal. bu baax a baax a baax nii fi may wax ak yéen nii méttit bu garaaw laay yëg te ñaari faar yi yëpp sama loxo bi nii bi mënul jóg nii. Mm-hmm. kii bu ñëwee xool nii ci gaw mhm. tey bés gaañu gaañu man xam naa ni fii dafa am yax benn yax bu dàmm quoi ndax loxo bi mënul def dara mhm. mais ñoom ci biir hôpital bi chaque jour ma wax leen docteur yi ma ne jàppale leen ma sama faar yi ñoom mais nag sama loxo bi rek la ñu tal quoi mhm. ñu opère ko nag après démb ñu bàyyi ma prise en ndax état bi mi ngi leen mi ngi leen di gert waaw nii nii nii bi moo jël à charge quoi waaw ndax man nag dëmb ci guddi laa ñëw mais dëmb bi ma ñëwee tey dem na kaacaaro bi sax ñu ne ma non waruma ñëw foofu naa dem ci beneen hôpital quoi ma ne ko ban beneen hôpital laa dem mais nanguwuma leeral quoi te man instant yii nii su ngeen ci jàppale hopital bi ma war a dem ni li may dund nii dafa métti nag. bi ngay ñi avant ngay génn ci hôpital bi. Hmm. du ñàkk dinañ leen booleek benn responsable boo xamante ni euh, dinañ leen ni boo leen soxlaa dara wala boo leen waree dem hôpital jokkoo leen ak kii. non non non man moom bi may génn ñoom wax ma dara. fi mu toll leen ci ay loxo kenn. non non ah, daal cas bi ma jox daal ñu ne ma daal su ma demee hôpital rek mun naa ci def ay passement sama loxo bi. lan la ma bindal si kayit bi moo ne papier yëpp indi naa ko. loxo yi. leneen la dal waxuñ ci dara. non yeneen yi moom waxuñ ci dara moom. te carte boobu moom nga yóbbu Kàncaar ñu rejeté ko. waaw. moom sama faar yi moom teg yàlla euh, sanal na ma te du la ay caaxaan. lan ngeen di xaar ci état ci seen wàllu santé. non état moom seen wàllu sante moom liñ ci xaar bëri na bëri na trop trop trop trop trop ndax nit moom foo feebaree war ngaa faju xam nga foo war ngaa faju mais boo gisee nii nii nii nii ñoom ñun fu ñu def soog bi ñoom ba dem ba jaaxle amatuñu fu ñuy def malade bi loolu problème état la. Mm-hmm. loolu problème état la. loolu nag amul kenn ku fi war a saafara lu dul état man gis naa malade yoo xam ne ne wax dëgg yàlla amuñu fu leen teg ndax bariwu yi bariwuñu man ñaari hôpital rek laa gis foofu ci li ma gis man ñaari hôpital laa gis bu hôpital bu mag bi ñuy wax ak bi ma njëkk a ñëw am na malade yoo xam ne xam nga ni boo xoolee nii man démb bi may génne ñoom ñëpp wax naa leen ci sama kanam rakk bi. ma ne ko man yéen a may génneloo nii de mais wax dëgg yàlla wéruma ah. ñoom ñoo ma génneloo mu ne ma noonu génneel boo génnee léegi boo demee sa dëkk mun nga faju foofu quoi dem bi may ñibbisi man oto bi démb bi ma ñibbisee ba ñëw fii munuma toog ndax xam naa ni wéruma te wéruma woon toog ci oto. ci ay bis nga duggaat wala. non non non sept places laa duggaat. sept places waaw. kon ci say moyen waaw waaw waaw man maa paasal sama bopp waaw. kon da jàpp ni génne bi ñu la doon génne dañ leen a bëgg a profité pour ngeen jëm. non loolu man loolu laa gis parce nit koo xam ne ne toll na ci blessure bu mel nii yàlla def na nga mucc ci accident bu mel nii waroon na la téye ba nga tànn bu baax. Mhm. ba xam ne ne lii dara méttitu la say yaram ñu bàyyi la nga dem mais man. li may wax ak yéen nii wax naa leen sama faar yi moo am problème depuis boobu docteur yi wax naa leen ñoom ñëpp la wax. docteur bu fi taaw dama la koy wax xool ma samay faar yi te ñoom def nañu rajo samay faar yi gis nañ ko gën nañ lépp mais gisuma dara benn effort lu ñu def samay faar yi loxo laa gis ñu opère ko ñaw ko def ko bandage bi ci ànd ñu bàyyi ma démb ci guddi may bàyyi démb ma ne ko man mënuma génnee nii ndax wéruma mu ne ma tànne nga day oh. tànn nga daal demal sa dëkk euh, am na kayit bi lay jox boo demee di nga faju foofu quoi mais nit koo xam ne nga nekk ci soog soog bi nga nekk dafa métti boo duggaatee ci oto rek da ngay am problème. Oh. boo duggaatee ci oto da ngay am problème état bi moom la ci des moom ci liggéeyam bari na trop trop trop trop trop waaw. diggante bi ngeen ñëwee Dakar léegi amul kenn ci nguur ci koo xam te ni ci nguur ki la bokk ku leen woo. nii nii man bi ma ñëwee fii amul kenn ci nguur gi ku ma woo amul kenn xanaa à part nii. donte dénk nañ seen numéro fenn foo xam ne nii wax nañ leen wala digg nañ leen ne dinañ leen woo. Euh, noonu pour man de dénkuma fenn mara pour ñu may woo. kon actuellement ci say moyenu bopp ngay fajoo ci ngay lekkee aussi. non nii nii nii moom si li may lekk moom. waaw dina sama bopp lek mais état moom moo jëloon à charge bi mais ñu ne ma kayit bi ma yor nii su ma demee ci hôpital yi ma faj waa mais maa ngi xaar léegi suba laa programme woon pour dem hôpital Dantec xool su ma demee ndax dinaa faju ana say man Fuuta laa dëkk. Hmm. sama papa daa gaañu sama yaay laa nekkal. ana sa yaay moom ñëw na hôpital seet la. non mu ngi Fouta ñoo sama mag bi moo ñëwoon hôpital ak kii sama rakk bi. Mhm. ñoom ñoo nekkoon ci man ci hôpital bi. Mhm. waaw. Mhm. sa yaay yéen a ngi jokkoo téléphone. waaw tey tey rek ñaari yoon jokk nañ téléphone. mais nii nii man maa xam ne ne atuna ma voyage dem dëkk ba foofu Fouta nu mu soree. ndax ci li may sentir quoi. moom sax loolu laa ko ñaan quoi. mu na ma may rek. fii ak semaine rek ba ma sentir dara si sama yaram ma mun a ñëw. ndax moom instant bi moo fi gën a sonn. waaw. Euh, donc euh, mu ngi noonu. boo leen déggee li mu wax euh, daw na yaram trop metti na aussi parce que bokk na ci li mu wax li ci gën a jaaxal mooy accident bu toll nii waxuma Sénégal mais dem ba France vingt quatre di ci def documentaire di ci wax. ak nombre bi ci gaañu nga ñëw senegal kilifa diine yi kenn tëddatul di joxe ay dogu kaamil pour ñu koy ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci wàññeeku euh, kon jàpp naa ne ci sama xalaat bu gàtt état dafa war a profité ci ñi nga xamante ni tey blessé nañ ci ba toog mais man mënuma comprendre ci lim wax nga blessé tëdd hôpital ñoom ñoo la génnee. ni la demal tegu lañu teguñu la ci benn condition teguñu la ci benn charge lu dul jox la benn papier ni la demal te bi nga demee bi nga ko njëkkee joxe ci hôpital bu caari dañ la rejeté euh, li mu ci gën a jaaxal nan la nit di feebaree def soog nombre bi ci gaañu pression boobu noonu nekk ci bopp ñu bàyyi la ngay jógee dëkk ba di ci cette place ak mettit boobu noonu yëpp nga koy dund. ñëwaat toog fii nii donc kon ñu ngi lancé euh, euh, appel état ak bonne volontaire yi nga xamante ni parce que tey am na ñoo xam ne bu ñu gisee ñii tey wallaahi lazim dinañ ci def lépp luñ mën parce que lii euh, nekkatul cadre jullit ak leneen ak mbokk lii cadre nit ak nit la parce que ñëpp a ciy profité donc ñu ngi lancé appel autorités yi ñu ngi lancé appel bonne volontaire yi nga xamante ni. mën nañu jàppale ñii parce que tamit euh, yàlla na ma yàlla baal euh, bu ñu génnee ci hôpital ba daanaka dégg nga li mu wax ñun ñoo ci nekk di sonn ñoo ci nekk di leen woo ak tey fii kaa bi toll donc ñun tamit ñu ngi woo autorités yi ñu ngi woo bon volontaire yi ñu ñëw jàppale leen teg leen loxo ñu mën a faju parce que kii ndaw la jeune la sunu moroom la mais gis nga tey mu ngi am yàqin ni moom est-ce que ay faaram damul mu ngi tiit est-ce que mbagam damul te jël nañ ko rek faj nañ ko opéré nañ ko génne nañ ko ñëwaat na toog fii yaayam daf ko soxla parce que tey bi soog bi amee yaayam tiit na pour gis ko yaayam bëgg na ko gis donc kon nañ leen ko jàppale mu faju mën a delluwaat ci ay mbokkam ah lépp lum ci mën a doon rek euh, dinañ ci gën a waxtaanaat ak moom euh, ñu ngi leen di jaajëfal tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax ñii di la seetaan. waaw ñi ñoom maa leen di sant bu baax a baax a baax mhm. sama mag la maa ngi koy sant bu baax taxaw na ma fune ne ma war a taxawee sama rakk la taxaw na ma taxaw bu ne bu ne bu ne li ma mhm. war a taxawee. Mhm. ñu samay dëkkandoo tamit taxaw nañu taxaw fu ne pour jàppale ma ci lépp. mais leen di jaajëfal bu baax yéen tamit. ñëw bi ngeen ñëw fii. jërëjëf ak bi ak dérangement bi loolu yëpp mënoon leen bañ a fekk. Mm-hmm. ngeen bañ ñëw. mais ngeen bàyyi seen yitte. Mm-hmm. li intéressé leen ngeen ñëw fii. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf donc mu ngi noonu ah ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox yeneen dig daja ci suñu yeneen émission pareeguñ ak moom euh, mais loo gis ne dina am suivi mais fii di leen jox yeneen dig daja ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.